Euh, en tout cas ministre bu am solo la nee naa ko ministère bi mooy Sénégal ndax boo yoree euh, PUDC PUMA Primerville euh, bourse sécurité familiale nga yore aussi tamit couverture universelle yaakaar naa loolu mooy réew mi li ma see wax rek mooy wax naa ko sànq ni li Karim Wade yore woon moom li mu yore sax moo ëpp li woon te gis naa bés bi ko jox wax dëgg yàlla 101 milliards la woon mook bés bi mu yoroon so réewuñu mais li ma see wax rek mooy lu am solo la pour que ñu xam ni réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk moo tax ma leeral ko ni ko man de bu doon man maay joxe bit si dinaa yokk si bit bi ndax li tax mooy boo jëlee couverture maladie universelle ak bourse sécurité familiale rek tey war na mën a nekk cent milliards léegi boo si bëggee dugal Promoville ak euh, Pima ak UDC yaakaar naa ne da ngay bés bi day tuuti dafay néewul pour mën a am. attendre résultat bi nga xam moom la nga koy sas te ku ne xam na ne àll bi dañoo xaw tumuranke ci ay mbirum tëli ay mbirum ranran ak ay ndox yooyu yëpp te yooyu yëpp si loxoom la nekk en loolu mooy li nga xam ne moom laa jàngat wax ni ko bëgg la ñuy wax ni moom lañ bëgg na benn annexe boo xam ne chaque jour bu ñu ñëwatee ñoom ñu indi li nga xam moom la nga ko bu nekk ñu def nañ fa muy loo dëgg lay doon mais di jël ay kër rek naan bind naa def naa 250 francs def naa lii loolu tamit ñun gëmuñu ko te gisuñu ko kon jàpp naa am na yeneen politique boo xam war nañu ko mën a wane bu ñu joxee xaalis boo ñëwaat rapport bi ngay indi nga indi benn annexe si dugal si nii département bi boo demee fii def naa fi lii def naa fi lii ñu mën ko vérifier ba xam ne loolu am na wala amul mais nat la téeméeri milliards nga dem seet lu neex nga def ko si aussi tamit loolu kiiwul parce tamit gis naa tamit ni am na ay discours yoo xam yu sensé la ndax xëy na peut-être li mu nekk euh, magu jabaru njiitu réew mi moo tax que tey député yi quatre-vingt quelques personnes bindu ñoom ñëpp da nga koy tàgg gërëm pour que neexal euh, soxnaas njiitu réew mi ndax yaakaar naa ni nit ki danaan boo bëggee cere il faut nga neexal doom ji moo tax député yu bari di neexal gis naa tamit yeneen discours yoo xamante ni am na ay changement ndax am na suñu benn collègue boo xam dafa wax ni député yëpp eh, gerte te loolu amul nekkate moom jox nañ ko 500 tonnes gerte jox ko 3000 3000 tonnes engrais jox ko 600 euh, tonnes yoo xam ñebbe la pour moom war koo joxe mais loolu boo ko ko ëpp na milliard kon kooku fekkente ne da nga def loolu te règlement intérieur article 101 dafay wax ni député amul sañ-sañu ñu la jox ay marché kon tey lii nii si loi article boobu noonu mën nañu sukkandiku ba assemblée nationale dàq ko moom moom mi nga xam mooy député bi ndax walaa balut te loolu du yoon man mi waxee amoon naa entreprise mais dama ko tëj ngir que maanaam liggéeyal askan wi nga pare ñaareel bu fekkente yow da ngay santaas ñu ne yow da ngaa doon laaj 430 xam ne nga bëggoon ñu jox la ko nga jox ko ñu la neex ministre bi lànk nga taxaw ne maanaam ministre bi deful dara di yàq loolu d'accord si tey xay na peut-être à grâce beneen député boo xamante ni bi mu fi ñëw ku ne xam ne ay mbër la indaaloon pour xeex ak moom xëy na kooku tax na sax moom mu sens discours am daanaka lu nekk nekk lu dëggu si moom ñun askan yooyu ñu fal moo ñu fa tax a toog conflit intérêt ensemble national moo ko tere nañu liggéey di wax ci bés bi di wote bu wote jotee ñu wërta wote nga xamante ne gisuñ seen bopp ñu war a woon wote ndax PDC ak numéro 2 bi yëpp

pour que bitse bi ñu mën a xool koy mën ndax ñun ñoo commission bi nga xam moko wara contrôler ndax ci opposition bi la bok inshallah dans chaque 3 mois ñu dem contrôler ministère bi ak direction yi nga xam ñoo yore ma directeur programme bi ak DAS bi laaj ko xaliss bi nga xam moom la jot a financé si trois mois yi fan ak fan la ko def pour que bu ñëwaat 2020 bi 2021 dana fekk ñu desaa ñu mëna xam fi ñu teg sun tank